dalee nag jàmm grippe aviaire tuberculose bovine anthrax fièvre de la vallée du Rif ak feebar yu virus Ebola ak Marburg ak feebaru rage di juróom benn zoonose yoo xamante ni ñoom la ñu identifié fii ci Sénégal mu di ay feebar yoo xamante ni mala mën na ko jox nit wala nit jox ko mala ngir nag amal ci ay joyanti tax ba division bu contrôle médical scolaire di point focal bu One Health ci ministère de l'éducation nationale ak ndimbalu projet USA USAID Breakthrough Action ñoo lëkkaloo ak secrétariat permanent bu Haut Conseil national ci sécurité sanitaire mondial di amal nag benn programme ci wàllum yéete ci juróom-ñett ci ay diwaan fii ci réew mi ndongo yi la ñuy yee ci zones prioritaires yooyee fii ci réew mi Denisia Sambou ñu amal ko ci juróom-ñetti région ci réew mi programme bi nag bokk na ci li ko a jóg fexe ba yenn ci ndongo yi ñaax seeni morom ci feebar yi nga xam ne mala yi mën nañ koo wàll nit ñi wàllug mala yi fii ci Sénégal docteur Aliou directeur de la santé scolaire moo yor lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci biir école bi ci ministère de l'éducation nationale. donc dañ fi dañ ñëw pour euh, di gën a xale yi. ci feebar yoo xam ne day jóge ci mala yi wala ci jaww yi mooy sa lu ñuy wax léegi one health wala une seule santé ndax gis nañu feebar du nit ñi rek ñoo indi feebar yi mais feebar aussi day jóge ci mala yi jóge ci environnement ci jaww yi donc loolu moo tax guvernement du Sénégal tëral benn programme boo xam ne bu am solo boo xam ne one health la tudd une seule santé benn wér-gu-yaram boo xam ne ci mala yii la ci nit ñi la ci jaww ji la programme boobu nag la primature lañ ko logé ne ministère yëpp ñoo ci bokk yoo xam ne nag tax na xale yi xam bu baax a baax yile feebar ak tamit nu ñu ciy aaree seen bopp. Ndeyumi Ngom njaxidaat noo flaye iyeefu sàngal kam zoonose li ma si jàpp moo soo gisee signe directement woowal ki si am xam-xam mu wax la te ba pare aaral sa bopp aar sa bopp mooy aar sa environnement ñi nekk ci yow yëpp aar nga leen te gis na zoonose yi dañuy reyee soo gisee signe directement hôpital zoonose feebar la boo xamante ne nii ci jàppee mën nañ ko wàll nit ñi comme nit ñi aussi mën nañ ko wàll ñoom animaux yi la rage bi nga xamante ne nii si si xaj lañ koy xamee ak biim la vie aviaire hautement pathogène moom ci animaux yi lay jógee et les l'Ebola et la variole la siis la ngir prévention bu mucc ayib IEF Sangalkam engagé wu nañu wéyandil sensibilisation bi ak théâtre scolaire bi Fatoumata jàll Dramé inspectrice de l'éducation et de la formation bu Sangalkam sensibilisation bu ñuy def nii dafa ñëw dëkk ak mala yi surtout ma man mii nga xam ne ku ma xam maa ngi dëkk ak ganaar yi dëkk ak nag yi dëkk ak mala yu bare donc euh, xam feebar yooyu ba ñu leen koy sensibiliser dafa war pour que vraiment ñun ñëpp ñu am benn santé bi. bëccëgu clôture bi ñu doon amal ci IEF bu Sangalkam nag tax na ñi di acteurs yi def bilan activité yi nga xam ne nag amal nañu ko ci feebar yi ñu dippee zoonotique prioritaire fii ci Sénégal. jaajëfal naa leen ci déglu bi dig daje ci beneen numéro.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 Bonjour. La grippe aviaire hautement pathogène, la tuberculose bovine, l'anthrax, la fièvre de la vallée du Rif, les maladies à virus Ebola et la rage, les six zoonoses identifiées comme prioritaires au Sénégal, des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme ou vice-versa. Pour une réponse précoce dans la surveillance de ces zoonoses, la division du contrôle médical scolaire, point focal sectoriel de One Health du ministère de l'Éducation nationale l'appui technique et financier du projet USAID Breakthrough Action en partenariat avec le secrétariat permanent du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire mondiale One Health déroule dans huit régions du pays un programme de sensibilisation des élèves par leur père sur les zoonoses prioritaires au Sénégal de Nisia Sambou. Mené dans huit régions du pays, ce programme permet de sensibiliser les élèves par leur père sur les maladies zoonotiques prioritaires scolaire au Sénégal, Dr Alioudia, directeur de la santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Les missions de la DCMS peuvent être résumées en trois points. La promotion de la santé, la protection des enfants et contre les maladies, parmi lesquelles les maladies zoonotiques, mais les autres maladies également, parce que tout ce que nous devons faire, c'est protéger les enfants. Mais aussi la prévention des maladies, parce qu'il faut également, avant de traiter les maladies, Des sketchs bien définir les maladies zoonotiques prioritaires au Sénégal, mais également la façon de les prévenir. Je m'appelle Sohna Diaouba, je fais la classe de CM2B à l'école Ndjahirad Noflaye. Une zoonose, c'est une maladie qui affecte les oiseaux qui peuvent le transmettre aux hommes réciproquement, La rage, on l'a remarqué sur les siens, ça attrape beaucoup sur les siens. Ou la grippe aviaire hautement pathogène, ça, concerne les oiseaux et les la vallée du Rif. aussi maladie aussi zoonose aussi la la gare ndayumingom njaxiraat nooflaye IEF j'ai retenu que les zoonoses sont des maladies vraiment mortelles et si tu vois les signes tu dois rapidement contacter le spécialiste sur cette maladie pour une meilleure prévention l'IEF de Sangalkam s'est engagé à continuer la sensibilisation et le théâtre scolaire Fatoumata Diallo Dramé inspectrice de l'éducation et de la formation de Sangalkam. La sensibilisation par les pairs reste l'un des meilleurs moyens de conscientisation des enfants sur les risques des maladies zoonotiques dans un milieu semi-rural comme celui de Sangalkam où sévissent souvent la rage avec les chiens, zérans et la grippe aviaire avec la profusion des vergers